au recours des comptes bi Chérif Dia. Fatou jërëjëf fi mu toll Sénégal dafa mel ni dañu nekk ci désordre te désordre moom bu amee rek kenn du dégg kenn te kenn du xam kan mooy kan ak palaasu kan. parce que fii ñu toll je pense que gouvernement bi dafa nekk ci dilatoire te société civile bi mi ngi en train quand même di tabbi ci piège bi nga xamante ni gouvernement mi ngi leen koy tànd. parce que doonu nekk ci situation boo xamante ni mbiram rapport bi nee naa leen amul luñ ciy expliqué wala luñ ciy dajeek ab premier ministre ba ciy leeral ndax rapport bi déjà la muy wax wax na ko ku nekk na nga def sa rôle na gouvernement bi moom mi nga xamante ni moom moo yor wàllu gouvernance ñu def gouverner état bi nga xamante tamit comme ni ñu ko waxee cour des comptes président bi saisir na garde des sceaux ngir mu jël mbir mi jébal ko justice mu jébal ko justice mm. société civile nag continue def seen role bi nga xamante moom la leen xamee mooy veille alerte ngir lépp loo xamante daal wàllu yore mu sell wala lépp loo xamante wàllu démocratie la wala état de droit bi lu koy ñoŋal ñu daal di koy def mm. mais bu fekkante ni quand même danoo dem ci jamono ji nga xamante ni mm. ñëpp na lu ñu fi defoon vendredi mu nekkoon manifestation boo xamante ne quand même la woon donc ñu apparemment boo leen déggee sax ñu wax Alioune Sané je l'ai écouté il dit que xëy na premier ministre xëy na nee na leen dal na seen xel donc bu dalalee seen xel mooy xëy na manifestation de rue yéen doon def bàyyi nañ ko te ku ne xam ne justice aussi dafa am temps boppam kon dañuy xaar kon justice bi nga xamante ni moom lañ jébbal kayit yi mu leeral ko ba mu lijjanti loolu ñoom ñu mën caa topp xëy na di continuer di wàllu manifestation alors que liñ bëgg ci lii mooy mu daal di leer mm-hmm. pour mu leer nag comme ni waxee ku nekk boo defee sóoral rek mu daal di leer mais euh, étant donné que ay pièces sax ñi nga xamante ni na leen mën nañ caa profité sax dem dem fabriqué ji ko parce que ils veulent gagner du temps ñu ci bëri loo xoolee ni temps lañ bëgg a gagner parce que defuñ li nga xamante moom la ñuy xaar ci ñoom. muy wàllu leeral ci wàllu euh, affaire rapport cour des comptes boobu soxna Fatick. Mm. te quand même ça ça ci wàllu société bi parce que am na yeneen loo xam ne xewoon na fi. ñu bëggoon gouvernement bi est-ce que moom fa wanal leen ngeen indil leen ci ay leeral pourquoi ñu xaar ba tey ci mbiram li nga xamante ne mooy rapport de compte Cour des comptes bi ngir ñu indil leen ci leer ci wàllu leeral ça ça ne doit pas se passer comme ça parce que sinon rek day am confusion de genre boo xamante moom mooy tax kon pëccëxoo daal am doo xam sax société civile finalement quelle société civile la war a doon alors am na yenn question yoo xamante am na fii mooy kaaw Pape Alé bi ak d'autres questions yoo xamante ni xaar justement la société civile joué ci loolu boo xamante moom moo tax sénégalais justement di leen wóolu parce que bu dee faroon fenn alors que c'est pas depuis bi ñu amee indépendance ba léegi ñu fee teg ngir ñuy produire ay rapport di xool li nga xamante mooy question de bonne gouvernance ak wàllu transparence mm-hmm. donc bu fekkee saa su nekk buñ génnee rapport rek ñu woo leen ñu dem ñoom ñëpp riirandoo autour d'un premier pendant toute une après-midi alors que à rien je pense que li ñoom nañ def seen wareef mooy justement mm-hmm. cette pression là qu'il continue quand même à bëgg parce que bu doon beneen citoyen la. ñu mhm. justice bi di gaawee. ci mbiram gis nga ko xaaroon fa sax wala nangam wala ay plainte ñim jopp ne daf leen a tuumaal wala nangam danoo jël ma nga ne gis nga ko procureur bi nga xamante ni garde des ak yeneen i yoo xamante ñi ngi ci kaso bi ñi ci leen pourquoi bu fekkante ni kan danoo jege Macky Sall ak nguuram nga gis ko kon gars di tendeefal di yéexal alors que ça ne doit comme ça mm-hmm. état de droit dafa am noo xamante moom lay daan doxee mais d'accourir vers le premier ministre pour dem fa wuti falan am yaa rien à chercher là-bas sinon seen liggéey nan ko def ñene ku nekk def sa liggéey su ko defee Sénégal mën a jëm kanam euh, Malick euh, Chérif wax na ko xaalis bi euh, démb yaa ngi koy waxaat encore rappelé ko dañ ko war a fay xaalisu réew mi la te itam jamono la yoo xamante ne si askan bi sonn nañu donc rapport bi dafa war a leer responsabilité yi ñu situé lañu ko ci na mu gën a gaawee rapport bi kay leer na ba pare. sa mhm. soxna. Mhm. rapport bi leer na recommandation yi leer na. li ci des mooy jëfee. appliqué waaw moom moo ci des. Mhm. maintenant man peut-être bien c'est c'est, c'est ñu toog waxtaan ah, parce que ah, euh, loo mënti xew. tamit dañ koy waxtaanee. c'est ça que dem toog ak gouvernement bi. waxtaan ak ñoom parce que aussi gars yi nekk société civile c'est pas des enfants de cœur yu nga xam ne da leen di jël di leen manipuler wala di leen jéem dox ci seen maay nag yu mel noonu donc toog nañu waxtaan waxtaan bu nga xam ne solu ñu n'ont pas porté de gants. absolument euh, mais bon la ca la ca tukkee du lu nga xam ne peut-être ñun moom lañ doon xaar. parce que liñ doon xaar mooy bu fekkee ni toog nañu autour d'une table pour waxtaan lu jëm ci lii que décision décisions fermes ñu daal di koy jël. mais li nga xam ne peut-être moom la ñu waxtaanee foofu ak décision yi nga xam ne moom ak engagement yi premier ministre jël mooy li Chérif wax léegi quoi guddal guddal jël la. guddal jël la guddal yoon la guddal procédure la mm-hmm. je pense aujourd'hui tant a écrit ici échange musculé entre la société civile et le gouvernement. voilà mi ngi noonu. moom mhm. laay wax nii ma ne mhm. donc c'est pas des enfants de cœur yu nga xam ne ñëw rek toog ñu ñu ñu nelawal leen wax nañu li ñu war a wax dóor nañ ci table ji. Mhm. le premier ministre aussi est dans son rôle. son rôle mooy mu jéem leen a dëfal jéem leen a dalal xamal leen ni. alors dinañ def tout pour que mbir mi leer. mais leneen li nga xam ne aussi moo ci xaw a doy waar mooy euh, li li euh, Amadou Ba wa société civile maanaam ñoom nañu au lieu ñuy toog yuuxoog di sànni xeer ak lu mel noonu nañu indi seen contribution ci naka lañu mun a def ba ñoŋal yorinu alalu réew mi je pense que loolu moom jarul xalaat bu rëy. Mhm. sa poos ak poosu nguur gi po sa poos ak poosu askan bi waroo ko jaawale. xaalis bi nga xam ne tey jii dañ la ko jox pour nga euh, pour une destination bien bien bien claire et bien précise waroo ko jël dugal ko ci sa gafaka donc mooy li yi di wax suñuy milliards warut rees euh, beneen bi ci des aussi am na leneen luñ fa waxtaane mais loolu aussi. Mhm. je pense que mooy li Chérif wax léegi. Mhm. il des gens yu nga xam ne tey dans un pays de démocratie. Mhm. Euh, bi nga xam ne ñun moom la ñuy ndamoo. ay nit ñu jël leen ni leen ràpp ci kaso bi di ay journaliste ndax wax ju ñu wax. Mhm. wala ndax ay nit ñu leen ràpp ci kaso bi ndax. bind bu ñu bind doguma la Malick loolu sax démb bokk na ci seen. ay bëgg-bëgg libération des otages politiques. te itam nee nañu am na sax ñenn ñu teg loxo si ñoom parce que dañoo doon taxaw di yuuxu di wax naan libéré Pape Alé Niang. ñetti activiste donc je pense que dans mm. un pays de démocratie mm. ay pratiques yu mel noonu dafa dafa war a jeex ay délits d'opinion ñu jël ci nit ni ko ràpp ci kaso mm-hmm. ci réew mu nga xamante ni defoon nañu ay jéego yu am solo ci wàllu ak ak yelleefu doomu aadama ak ci wàllu démocratie mm-hmm. ba ñuy citer en référence je pense qu'il y a un recul démocratique notoire mm-hmm. ci jamono yi ñu nekk nii donc tey libération de Pape Alé libération ñi nga xam ne dañ leen a jàpp ndax wax seen xalaat wala bind seen xalaat ci ponk yi ñu doon waxtaane la que des mesures doivent être prises mhm. immédiatement mhm. mais li nga xam ne tey moom la ñu gis mooy le rejet euh, de la demande de libération provisoire de Pape Alé Niang mhm. démontre encore une fois que gars yi dañuy matt di ëf li ñuy wax ak li ñuy jëf bokkul donc il faut absolument aller vers la libération immédiate et inconditionnelle de tous ces détenus d'opinion et politique. Mhm. et beneen bi ci des mooy mbirum troisième mandat loolu moom je pense que lu flou est toujours là. Mhm. kenn ñemewu ci seex yàbbi ki nga xam ne moom mooy ndey mbili ji di président la république tant que waxul ñi ci des duñu mën a am euh, maanaam sañ-sañ wala fitu sax wax ci. Mhm. lu lu lu leer donc beneen l'un dans l'autre. bi c'est bien. mais li nga xam ne moom moo fa jóge moo tey xel man jàpp naa ni. guddal procédure moom la ñuy def. mais les choses doivent être. diligenter. Mm. parce que c'est l'exigence du peuple sénégalais. très Marcel. waaw ci diligence boobu noonu je pense que wax na ci moom euh, Amadou Ba donc je pense que c'est un petit peu pour maquiller euh, un petit peu la sortie de, de Ismaël Madior Fall hein. Euh, je pense que jamono ji ñu toll c'est vrai que euh, jarul ngay jaare ci yenn processus yi ngir mën a fexe ba lépp leer ci ci dossier yi nii <coughs> je pense que tamit ci ci mbiru <coughs> ils ne font que du naka laa ko mën a waxee de la diplomatie en tout cas pour Amadou Ba c'est c'est un petit peu de la poudre aux yeux que di promettre li nga xamante ne peut-être euh, moom ci euh, ci wàllu boppam euh, xëy na sax mënu ci mënu ci dara ndegem ministère de la justice moom moo ci moom moo ci principal concerné et puis bien évidemment ñi nga xamante ni ñoom ñooy yëngu ci ci wàllu justice donc ngir ngir ñu def seen seen liggéey donc diligence boobu noonu wax na ko dina diligenter dossier yi il l'a promis maintenant cette promesse là il faut xam fan la ñuy euh, fan la ñuy mujjee euh, sachant que euh, moom fàttali na nekk analyse du rapport Cour des comptes boobu noonu c'est au total 85 recommandations outre 12 yi nga xamante ne day jëm ci ouverture des d'informations judiciaires donc am na ci 18 recommandations yoo xam ne day viser amélioration dispositif pilotage ak contrôle ak 55 yeneen am li nga xamante ne moom mooy recommandation pour amélioration cadre bi ak de mobilisation des ressources ainsi que des modalités modalités d'exécution des dépenses donc euh, euh, loolu yëpp comme je dis c'est bien beau maintenant euh, mêler l'utile à l'agréable mooy que tey ñu l'acte à la parole surtout gannaaw bañ ci ba mu ëpp léegi ñu war a jëm ci jëf gi euh, comme ni ko euh, Cour des comptes dal di daal di recommandé euh, ngir ngir fexe ba ba mbir yi leer parce que waxaat na ci li nga xamante ne moom mooy somme bi ñu ci doon bi ñu ci doon waxtaane sur les 1000 milliards c'est 6 virgule 60 milliards yoo xamante ne ñoom ñooy manquement yi yuy porté ci ci boobu les rapports mm-hmm. donc nee na nag de telles pratiques si elles sont avérées dafay heurter éthique seen éthique ñoom ba pare ça n'honore pas leur administration ku ci nekk am na li nga xamante ne moom mooy raxas setal deram ci ci ci wàllu boobu noonu et je pense que tey en tant chef du gouvernement mhm. euh, discours mel noonu rek lu mën a am ngir euh, ngir ngir fexe daal a rafet xëy à son niveau sans pour autant que ñu espérer peut-être mhm. euh, une suite qui proviendrait une solution boo xamante ni ci moom lay ci la question du troisième mandat je pense que tamit muy société civile ak keneen ce n'est peut-être pas au premier ministre de se de de se prononcer moom mënul tey wax ci li nga xamante ne moom mooy troisième mandat comme il l'avait dit lors de sa déclaration de politique générale du moom moo ci war a mën a tontu donc le principal concerné moom moo war a euh, yeewi askan wi <laughs> pour reprendre euh, l'autre expression mm-hmm. euh, wax wax ni ci benn yoon comme ni ma ko yàgg waxee du waruñ ci woon sax yegg ci ay ay déclaration yu confirmé wala infirmé li nga xamante ne moom mooy troisième mandat dañoo waroon sukkandiku ci constitution bi et Euh, je pense que dara gënul leer lu nekk ci article 27 bi euh, jeexal jeexal na wax jarul ñuy laaj keneen koo xamante ne il indirectement lié à cela. merci beaucoup Marcel 7h jot ba tegal juróom-ñeenti simili léegi léegi un jour au Sénégal un jour dans le monde. aywa ñu euh, wax nag euh, ci bés ni tey la woon atum mille euh, mille un nag boobu dañu doon rek daal màggal juddug Louis Braille Louis Braille na ku ko dégg sa xel dem ci Euh, méthode Braille bi nga xam ne euh, silmaxa yi euh, moom daanaka daal ci la ñuy jëfandikoo ci lu ëpp ci seen wàllu jëflanteel lu jëm ci njàng ak njàngale moo tax ñuy wax loolu nag ñu ngi ko jàppoon ñeenti fan ci weeru janvier ñu daal di koy déclaré woon ne mondiale du Braille ñu ko amaloon nag mooy union maanaam kuréel gi nga xam ne dafa lëkkale ñi sëgg ci àddina wërngal këpp fàttaliku bés bi dañ ci ànd ak Fatou Kiné Dem